lu rafetlu ànd beeg seen site bi di Sunugal 24 am mbégte lool ak bànneex ci dellu si waat fas yéene àndaat ak yéen ci biir kër Mbayang niñ koy defee sax su ne euh, di nuyu équipe technique bi nga xamante ni ñoom laa àndal waaye particulièrement sunu boss monsieur Top ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar di ko kontaane kontaane leen yéen ñi nga xamante ni yéen ñuy wéy di ñu topp macha allah te it nag des fois am ci ñoo xamante ni yëkkati ay ñaan jëmale ko ci ñun ndax ginnaaw ba yàlla wéyee ba noppi nda yàlla du wéy fu ma nga fa sant nañu yàlla bu baax a baax ginnaaw bu ñu àndee ak euh, yennat ci sunuy gan ñuy jëflanteeg ñoom jëflante boo xamante ni bu mucc ayib lay doon sama yaay nag dama daan faral di dégg muy wax ne euh, tàgge boo gis am na jàppal ma diw tey gan gi ma am doon gan goo xamante ni gu màgg la waxtaan ak moom sax dafa may jafe ndax fa mu bokk tax kan lay doon incha allahu taala dinañ ko xam léegi-léegi gannaaw bu ma ko bàyyee mu nuyoog bokk internet yi Serigne Cheikh Bara Gaydel maa ngi lay nuyu di la ziar la bàyyi nga nuyoog sunu gars yi ñuy seetaan asalaamaaleykum wa rahmatullah soxna Mbaye ñu ngi lay nuyu ci di la ziar di wax ñi ngi nuyu mbokk internet yëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waaleykum asalaam wa wa barakaatuhu Serigne Cheikh Bara Gaydel euh, fu mu bokk Serigne Bara Gaydel benn jëmm la boo xam ni mhm. day sëtu si Ahmadou Bamba di sëtu Cheikh Sidi Mokhtar Mm-hmm. waaye di sëtu Serigne Niane Diop. Mm-hmm. Serigne Niane Diop Cheikh Ahmadou Bamba boole woon koog Cheikh Mouhamadou Lamine Bara rekki day mm-hmm. ba tax mu def ko ni ko def. mu sanc tey guy mbind. ak xalifaam mooy sama waajuru góor. taawu sëñ Sidi Mokhtar mooy sama waajuru jigéen soxna Mbayang. soxna mooy sama sa wajuru jigéen mooy taw sëñ Sidi Moxtaar waaw macha allah yëg nga ne wàcc naa ci suuf jox la sa wàccuwaay ndeysaan toor te euh, euh, la sa wàccuwaay ndeysaan ñi leen nuyu ñoom ñëpp toor fa kàlla boo ñaanee war ngaa ñaan la ca a koy jël toor fa kàlla waaye nag macha allah fa tabaarakallaahu catuwuma la fan nga jaar ba ñaan dugg ci yow soxna Mbaye loolu soo ma ko laajee mhm. naa sa sawar tontu mhm. ndax dañoo judd fekk suñ juróom-ñaari maam yëpp di faj aajo mhm. ñu juddu fekk leen ci loola. ñu nit ñu dox tànk yooya. ba jot ci lenn ci seen i may. ba man cee faj aade doomu aadama bu jàkkaloo ñun. ngir bëgg ñu faj sa aajo. ci ndigal nga ko defee wala. ci ndigal lañ ko def. ci ndigal sama waajur góor mi ngi dund. Mhm. mi ngi fi ci li may wax dana ko seetaan. Mhm. ma am ci ndigal. Mhm. ndigal loo xamante nag moo ci gunge ci côté bu ne. muy ci wàllu bépp ñaan boo xamante ni. nit mën na ko defal doomu aadama. te muy lu rapide nag lu gaaw. mu sol ko ci man waaw mhm. bokkut ak sëñ Sidi Moxtaar mi nga xamante ni moom la àndal fanweeri at mhm. fu mu jëm ma ànd ak moom mhm. ay secret yu bari yoo xamante ni rus naa ko sax di ko defal doomu adama ngir ma kawee gum kawee ci ba ma jox ak man sama jëm bopp maam kawee gum kawee ci man macha allah muy sa maam jur sa way jur sëñ Sidi Moxtaar waaw defe naa ni nit du toog di wax ci jëmm ju tedd yooyu sëriñ Sidi Moxtaar ak la mu doonoon di wax loo xamante ne ay caaxaan la looloo tax ma geer ba indi ko ci sama plateau bii Kër Mbaye ndax nee naa leen yéen a ma ñor yéen mbokki internet yi waaye mu nekk loo xamante ni yombul woon pour nga ñëw lu tax lu tax nga ngay bañ média xam nga soxna Mbayang mhm. nit ñi ci bari damay dégg ñu naan mhm. ñi ci média yi mhm. dañuy mënuñoo ñaan wala dañuy fo rek fekk dafa am loo xamante ni soo ko waxut ba nit ñi xam ko du am njariñ ndax bëri ñoo ay wàllu yàlla yu mën a faj aajo lool mm. yoo xamante ni boo demee seen keppaar mm. ñu faj aajo sensé waaye kenn xamu leen mm-hmm. waaye ñun dafa am mission bu ñu yàlla dénk mm. muy ñu war a génn jàkkaarloo jàmm ñi faj seen aajo mm-hmm. li tax nag ñuy dem ci écran yi du bëggub dërëm waaye bëgg jàppale doomu aadama yi la da nga koo waaw ndax ñun amun amun jot googu ndax mm-hmm. dañoo yor ay tool yor daara dafa liggéey sëriñ Tuubaa dafa yar ay Baay Faal ak yaay Faal moo tax amul yenn jot yi. am na solo ba tax na yow loo ma ñaan dama la koy may moom. Mhm. Mhm. am na solo bu baax a baax ñu ngi ko dalal moom Serigne Bara Gaydel Serigne Cheikh Bara Gaydel mhm. euh, macha allah mi ngi dëkk fii Yoff ci boori marathon euh, soriwul sama kër dara macha allah dama leen koy may ku laajte sama kër ku ñëw ku ne dinaa la joxoñ këram wala boo taxawee marathon nga woote ci 77 804. 45 euh, 77 wala nga def 78 594 42 42 moom mooy numéro danañ ko teg ci suufu écran bi euh, gaydeel gi man nga ma ci ñëwal tu lu indi gaydeel gi. gaydeel gi nekk lu kiimaane loo xam ni. ci lu gaaw. gaydeel gi gaydeel dafa nekk lu kiimaane loo xam ni. Mhm. sëñ Sidi Mokhtar. Mhm. moo ma joxoon ndigal loolu. Mhm. ndax ki nga xamante ni moom lañ ko daan dakkantelee. moom la ma sëñ Sidi Mokhtar boole loon ni ko boole naa la ko. su sama ginnaaw ak sama kanam. muy sëñ xarim loo gaydeel foofu la gaydel di juge jëmu jooju yéem gaay waaw ah, foofu la gaydel di jugee. macha allah. <laughs> am na loo xam ne li ci bari mënut mënuma ko wax ak moom. Euh, mm. ci biir émission bi waaye mm. nag li ma leen di wax rek jël leen numéro yi ngeen woote incha allahu taala euh, du ngeen ko rëcc benn yoon te léppam tabarkalla macha allah jooni jooni la ndax ndigal la ko defee te it la ca maam sët koy jël euh, macha allah wallu li saxaar ak wàllu seet nekk sa mbir nit na la tip tur sàngam nga ne ko kooku nekkul ci dëkk bi. lu la may loolu. waaw loolu may yàlla la may yàlla la ak donn ko ak gëstu ko téye ba xam ko. Mm. soxna Mbaye wàllu li si xaar suñu borom dama cee may loo xamante ne soo ma xasee ba jox sa turu yaay mm-hmm. li nga sol sax mën naa la ko wax. man loolu moo ma jaaxal moo tax ma def ci accès. bu la fekkoon ngay def leneen lu dul noonu. Mm. xam nga soxna Mbaye tey ma leeral loo xamante ne ñu ci baree bari. Mm. li tax ñu li tax bàyyiwuñu ma de man maa leen bàyyi. ndax dañuy toog seen oto wala ñu toog seen saal di wax moo koy dégg te la ñuy wax donte téeméeri kilomètre la maa ngi dégg li wax loolu mayu yàlla suñ borom la mm-hmm. waaw mayu yàlla suñ borom ku may la ci seet ci seet ba ku ma ci seetal lépp lu ma la wax takk ko téere loolu moom ma jaaxal waaw loolu moom mayu yàlla gu ma suñ borom may la seet moom ak li ci xaar yi mu ku yàlla bind moom dinañ dinañ dinañ ci ñëw mm-hmm. dinañ ci ñëwaat euh, mm-hmm. incha allahu taala ci mbiri jooni jooneem boobu ak seet gi ak lam cey wax waaye euh, bari na loo xamante ni cheikh bi cheikh Baara euh, da nga koy faral di dugg xalwa mu mel ni que am na kilifa yoo xamante ni daanaka tax nañu nit ñi mënuñoo jot fii ci yow ci diwaanu yoof d'ailleurs moo tax sax ñu randal si la fii pour bu ñu la bëggee ne la coppet ne la meng nga dugal leen xalwa xalwa lan la mën a def ci doomu aadama xalwa soxna Mbaye li ma def ci doomu aadama bari na trop mhm. xalwa day wan nit ki mbir mi mhm. ginnaawam ak kanamam mhm. te day tax nga man a xam lépp loo xamante ne mën na ko gaar ci addinaam ba mu mën a xam lam lay génne ay sarax ba mu mën a xam lan lay def bañ a agsi ci moom xalwa loola jëriñ man na daanaka mënuma toog lu mat une wala deux semaines te dugaluma kilifa xalwa ndax daanaka li may tukki loolu lépp lu ko waral mhm. bala quinze bii rek war na maa dem euh, Dubaay mhm. ngir am naar boo xam ne dama ko war a dugal foofu ngir une semaine dèjà ku la xool sax xam ne ci dëkk naar yi nga dëkk waaw oh, oh. <laughs> waaw bët naa fee macha allah bët na waaw mais laaj benn question mhm. est-ce que euh, Mame Boye daf la branché nit ñi wala nit ñi dañ la daan gis ci wetu mam booy ba tax ñu wóolu la wala déet sëñ Sidi yàlla yàlla yokk ay leer nit ñi nag dañ maa dañ maa yàgg fonk soxna Mbayang mhm. ki gën a dof ci nit ñi mooy ki amulul nit ñi njariñ bëgg ko yëg mhm. ki amulul nit ñi benn njariñ bëgg ko yëg kooku gën a dof ci nit ñi dëgg la nit ñi njariñ rek mhm. ñu daw si la sëñ Sidi Moxtaar daan faral di wax nit ki boo ko amalee njariñ foo ko yónni mu dem boo ko wooy lu jàpp dana ko wuy ngir amal ko njariñ waaw ci nit ñi man damaa yor seen njariñ yor seen njariñ googu tax na ba lu jëm ci wàllu samp nit da koy def euh, ki bëgg falu Mm-hmm. ki bëgg a doon directeur mm-hmm. ki taxawal société mm-hmm. ki bëgg a yokk euh, da nga koy def samp googu yor ci cangat yu doy waar euh, yam moom alxuraan la wala sungu fak ren wala lan la xam soxna Mbayang kilifa dëgg du taxaw ni kii laa fal wala kee waaye li ci mën a cité ca ko seeraan xam ko président de la république bi fi nekk ñi ko fal ci laa bokk hmm? daaru tansil daaru tansil keroog maa ko defal mu reer wax la ma koy wax président Adama Borom maa ko fal ci dëkk bu naan Tawfeex waxtu tàkkusaan ci kaasu café Touba ci laa ci kaasu café Touba. ak ñeneen ñoo xam ay directeur généraux yu nekk biir biir Sénégal gii koo nga baal ma mais fit fit ngay demee de. Ah, mais li ma wax dafa li ma wax xusaan dañoo xam président Macky Sall maa ko jox mu reer ba reg ma ne ko réew mi ci loxo lay mujj ci kër Serigne Cheikh Bara Moutilé ci Touba. Daaru Tansil Daaru Tansil. nga ñëwaat ak Adama Baro ci café kaasu café. kaasu café Touba waxtu tàkkusaan Tawfeex ak ñeneen ñoo xam du ma seen tur ci fi ñu doon nekk nañ ay milliardaires ba ma leen di xam naa def damay bañ ko ba tëj waaw waaw ah la tëj li wax lu wér <laughs> numéro bi xam naa ni gars yaa naan soxna Mbaye waxam ji bari na joxe numéro bi parce que ñu ngi ci suuf écran bi mënuñu ko gis mhm. alors 77 euh, le 804 45 74 wala nga def 78 594 42 42 wala waaxusil ba fii ci Yoff mhm. côté cimetière yi foo laajte marathon danañ la ko wax nga taxaw fa jël sa numéro woote incha allahu taala danañ la fa yóbbu ci këram tegtal la ko wala nga laajte ma man sama kër ma tegtal la ko tax man gaa yu baax yi dama leen indi ñu wër ma waaw kay dëgg neexul mhm. euh, su ma nee cheikh cheikh bi day ubbi waate mhm. dañ naan ndax cheikh bi ubbeeku na am déet mhm. man xam naa ne ubbeeku nga tabaarkalla lafu laf cet parce que des fois dañuy wax naan waaw ñu ngi naan dañuy ubbi nangam dañuy ubbi nangam te ñoom ci seen bopp sax yoruñu dara euh, cheikh fekk fa mu nekk ca tool yaag daara jaag macha allah da xam ne kii namm dara taxu koo ñaan. dëgg euh, ku béykaay gi ngay joxe cangat boobu noonu ñaata fan nañ koy sangoo ñett wala juróom-ñaar wala. ma gàttal ci tënkal rek. ci wàllu ubbiku googu. waaw man bala maa faj aajo kenn man sama sama aajo laa njëkk a faj. bi ma am fukki at ak ñett laa tabax kër. bi ma am fukki at juróom-benn laa samp daara tabax ko sama bopp dërëmu état demu ci tabax juma. yore passeport passeport bi nag juróomi tur te bay waaj a dem Dubaay nii. Oh. waaw man sama classe gi la soxla nag léegi nga bëgg leen fee bàyyi. bala ma ubbi kenn dama ubbi sama bopp ba noppi te samay mbokk laa ko njëkkee ak samay taalibe ak samay am di jàmm lu may wax it day leer ndax dama am taalibe yi ma yaakaar addina alaxira nag te ñu ngi may seetaan nag ci rus dama mm-hmm. wax dara loo xamante ni nag soo fi jógee ñaan sëñ bi loolu bett nga ah, bokk maa ñi damay doomi ñaari kilifa yoo xamante ne luñ dakk mu dem rek day de ku mu li ñeel ku ne ku ne dégg na ko ah, loolu de wér na <laughs> waaw kay euh, ma ñëwaat ci laaj bi ubbeeku bi ca ngat bi mm-hmm. Mm-hmm. sunguf ak ren la wala alxuraan wala lan alxuraan moo ci ëpp mm-hmm. sunguf si dañ ko ci def rek ngir waaw sunguf ak alxuraan dañu am ko mosuma na alxuraan yàllaa ko sakk garab yi ñuy wutee sunguf tamit yàllaa ko sàkk waaye samay sangat soxna Mbayang dafa dafa dafa nekk lu efficace loo xamante ne mënut a passé vingt quatre ak soxla lum rëy rëy rëy rëy mënut jëkkër a jabar am problème ba ñu dem tribunal. loolu nga jox leen rendez-vous boobu maa koy wax 48 heures laa leen may ñu melaat mu dookum soow. wallaay yombal nit ñi bañ ne nii ñii fan lañ jaar jubóo. waaw oh, loolu moom. 48 heures 48 heures la moom. loolu sunguf la wala lan la. loolu sunguf la ak ay sangat yu wér dama lay tënkal yi nga xamante ni. Mm-hmm. yooyu damay tënkal yi nga xamante jëkkër ak jabar. nit ku néew kattan. waaw nit ko xamante ni. kattan geeg ñoolu doom ji garab yi sama bagage taabal jooju. bu reeree sama ndékki parce que da ngay bañ ma dugg ci détail yenn yi <laughs> wa wa wàllu kaaraange gi aussi. ak mm. retour à def la dara léegi léegi léegi. Mm. nga dem ci cheikh bi. cheikh mm-hmm. Baara Gaye del mu defal la loo xamante ni kooku dafay daal di dellu siwaat ci yow su ko tuub di la raamal. nit ku la mën def dara. waaw wala mu yor sa alal di la jaay doole. waaw boo ñëwee ma joxal loo xamante ni boo egg sa kër mu wal dina sa alal nga ne kaay jël donte ay milliards la. Mhm. donte say kër yu ñu nangu la donte dañ laa tooñ. waaw bu ñëwee ma jox la loo boo ko jëfandikoo balaa ma 30 minutes kooku daan la woo téléphone ni la sëñ bi maa ngi jégalu kaay jël sa alal. muy wàllu fay bor la jaay doole. wàllu noob ak yooyu dama ko jàllale mais mais cheikh bi. Mhm. lu tax nangu woo gars yi dugg kaso nag. waaw ah. sa gars yi dañuy léeg-léeg dañuy ñëw ci yow rek ah affaire bi ñu bàyyi ko mu sedd. waaw dañ ci am soxna Mbayang dañ cee am njaboot. waaw léegi bu am njaboot ba loo xam ne duñ kaso. dañ cee am njaboot kaso du kër dañ cee am njaboot jàmbaar amul kuñ dimbalee am kaso moom su ma ci yégee première première porte plainte moo ko yégee kenn du ci ŋaat moo ko moo ni ku réeré ni ku réer ba am fukki at nangam su ma ko xoolee su ma waxee turam ak turu yaayam ma xool ko naa xam ba xam dee na wala déewut fekkee déewut boo ma joxee yéeram ma ko soo xëyee nga gis ko sa buntu kër mu toog ak ku mu mën doon ci àddina nit ku réer dem nangami at ñu xool ko te waaw su ma ko xoolee naa xam ne dee na wala deewut fekkee deewut nga indi ma yéree ma faanoo ko soo xëyee da nga ko fekk sa buntu kër mu toog muy kii muy kii juddu mun mu sa gis baayam wala ko judd mu sa gis yaayam wala ki nga xamante yaayam dafa dem xamul fan la nekk su bëggee xam na nañoo ci man wax ma turam ak santam léegi ma wan ko fa yaayam ne xam su ko dégg dafa na loolu <laughs> barke rasulullah waa jaa ngi li sa li li li li sàcc bi bañ waa jaa ngi waaw kay numéro yaa ngi noonu du ma ko waxaat damay bañ a jël sama temps mhm. parce que dafa am garab yu am solo yoo xamante ni dafa mhm. raar ci ma gis ko mhm. nga déchiffréel ma fii benn par benn gis naa fi pot bu ndaw bi pot bu lu muy jëriñ bii nii soxna Mbayang dafa am ñoo xamante dañuy faral di jeex waaw ci duñu xam leen a jeexloo waaw paren saay nag loolu feebar lay doon waaw waaye lu mu ci mën doon lii boo ko jëfandikoo balaa po bee jeex waaw nit ñi laaj la yow lan ngay lekk mooy pot bi waaw waaw. bii nag moom man dong maa ko fi def ci àddina moom. moom a jàpp secret bi Cheikh Sidi Moutar laa ko jëlee. lan la. ak fas la goo xamante ne boo ko takkee. Hmm. bu la fekkee nga yoom wala nga new kattan dama jaar ci digg bi ndax noonu lañ ko joxee. waaw bu la fekkee nga wala nga néew kattan. waaw boo ko takkee yaay roo fasu kurt. giña <laughs> baal ma. waaw <laughs> maa fa jaar de yooyu laay wax <laughs> dama tiit nga ni ma lan. boo ko takkee yaay roo fasu kurt. bii nii. bii nii. te du eh. yàq du def dara. da nga koy wàcc sa ndig rek nga koy wàcc sa ndig rek bu fekkente ne daf la dab wala da nga ko judduwaale ak lu mu mën di doon boo balaa man trente minutes nga commencé yëg sa bopp yaramu tàng la lay dikkee moom nga commencé ñaqatoo xëpp xam ne mbir yaa ngi dekkale parce que keneen ku la wax moo koy defar ci àddina rek ko yàlla mbaa ko seeru ah, tàng na moom waaw gars man man buñ rek <laughs> affaire bi day daal di gën a yomb tàng na indiwaat beneen boo xamante ni sunguf la mm-hmm. moom bii day yëngatu ci wàllu kattan moom it waaw waaye traitement la traitement la waaw day ci wàllu kattan. waaw bii ngay jël. waaw di ko naan moom di ko mbëq di ndox mu jàll. waaw boo xasee ba jël nag moom 15 jours doo tëdd jigéen moom. 15 jours waaw jigéen. da nga koy off waaw. waaw sooba yàlla incha allah rabbi moom wàllu kattan wala lépp lu nekkoon ci yow da ngay tàqali ko moom. d'accord waaw. ñaari pot yu rafet a noonu macha allah. bii ci kaw. waaw mooy potu jooni jooni bi. joni joni waaw joni joni kattan bi nga xam da ngay tàngal ndox def ko ci léegi bala nga tëdd soxna wala waaw bala nga tëdd soxna rek ndax nit ñi moom waaw mënul ñi moom ku ko jënd nga laaj ko ba xam ne am na soxna am déet waaw en tout cas daal ku koy jëfandikoo ndox mu tàng lay boole waaye moom def moom kii joni joni traitement la waaw kii nag moom moo lay tàggaleeg moom <laughs> muy fas gi nga xamante bii li ci gën a mooy waaw ndiggu li metti secret bu la sëñ Sidi Moxtaar jox la waaw metti ak digg ginnaaw gi metti sax da koy traité waale fas gi ah. lu ma ci defa taxaw sëñ bi ma ci fas yi may weccee nag ah. man may wecci <laughs> xam nga man ak yow ñoo bokk koñ <laughs> loolu moom ñoo fa <laughs> kay mhm. nekk koo mhm. xamante ne nag ku oyof la ku wàcce bii nii voilà mooy wàllu jigéen ñi nga xamante ni waaw dañoo am doom toog lu mat fukki at wala nanga wala ku musta am doom ku musta am doom boo ko utilisé balaa kii bee jeex da nga a téléphone ni ma sëñ Baara maa ngi sant di la gërëm peut tamit lii te fekk nga nekk ak sa borom kër fii ba Europe lu ma ci defar du taxaw ndax loolu gàllankoor la te li ma gën a intéressé mm-hmm. sama sama faj mm-hmm. mooy nit kuñ tooñ mm-hmm. wala kuy sëy mënta am doom ndax jigéen li lañ koy xeebee nekk ci kër mënta am doom góor li lañ koy xeebee nekk kattan ñaar yooyu rek parce que jigéen ñi mën nañoo muñ ñàkk xaalis ñàkk dëkkwaay waaye ñàkk kattan moom kenn da koo mënta muñ moom waxal ca kaw <laughs> lu la takk-takk loolu rafet rafet boo nekk ci kër ga ne a am doom da lay xeeb ak def nag xeebaate googu nag moo ma metti ba nga xamante nag ma am ci ay ay ay fajukaay yu efficace yoo xamante ne ku ñëw ci man ma tàqal la loolu. Mhm. waaw bu fekkee rab moo la teree am doom ak lu la mënti loolu xam lu ci mën am dañ koy xool ba noppi. waaw man samay mbir moom lu ci mën am dama koy xool ba noppi. d'accord ak lu mu doon jaaro beeg fas geeg sunguf seeg loo ci mën di sangate alxuraan yeeg yëpp dama koy xool ba noppi. mais yow dégg na yor nga jaaro bu doy waar. waaw jaaro boobu moom benn la ci moom ci adduna surtout ñi nga xamante ne dañ nekk bitim réew moom dégg naa mhm. ak ñi nga xamante ne dañoo soxla ñu teg leen cër mhm. euh, jox leen cër ci place yi ñuy liggéeye mhm. maanaam euh, noot tubaab bi loolu danga ci am jaaro ak ndomba yoo xamante ni yu day waar la am naa ci jaaro am naa ci sangat am naa ci ndomba gu efficace sax ndomba goo xam ne comme du ko jox sax ku amul 30 ans wala 35 ans jëm kaw ndax efficace ndax am na loo xam si Abdoulaye Wade waxoon bu la alal ju bari wuyu see mën ngaa dof te loolu laay bañ <laughs> Serigne moom la ñu àndaloon tey ci émission bi yaakaar naa ni ñëpp xam nañu ko ndax ni ma leen ko waxee euh, way juróom bu jigéen soxna May euh, Serigne di Mokhtar mooy way juróom moo di taawam mu jur ko moom mii euh, ci yaay ci baay muy bete bete ci wàllu ñaan lépp nag dafa xajul ci émission cheikh bi mën nga maa may semaine prochaine ñu dellu si àndaat man ak yow ci yeneen yoo xamante ni dañ ko war a faram fàcce parce que damay bëgg di jàkkaarloo ku mel ni yéen ndax daf may wóor ne ma kii li muy def foraatuwu ko wallaay man nag samay mbir dama koy partagé. 10 mhm. sur Touba. 10 mhm. sur tool ya 5 sur Dakar. Dakar moo ci a néew li muy li nekkul li ñaan gi rek mooy sama nga bëgg ma def ma tourné waat. boo jógee Dubaay. waaw kañ nga ma dem Dubaay incha allah wala gars yi mën nañ la ko ba ci kanam. le 15 incha allah dem Dubaay waaye ku bëgg booba léegi balaa le 15 daal maa fi. le 15 bi. maa ngi Dakar moom déwuma fenn. incha allah waaw te képp koo xam jëflante nañ. Hmm. muy wàllu sangan muy wàllu jaaro muy wàllu fas yeeg lu mu mën doon. fa mu mën nekk moom daañu la ko yónnee. fekke biir Dakar la am na xale yoo xamante di jégluwaale baax nag nit ñi may woo téléphone mënuñu maa jot. waaw ay cinq numéro kenn da ngay faj aajo ba noppi sa gis téléphone whatsapp bi hmm. am na xale yoo xam ne lañ yor. Hmm. ay xale yi ndaw lañ yoo xamante sama daar lañ génnee fa lañ jàngee alxuraan mokkalee fa bind fa kaamel defal lépp. ñu yor sama téléphone ñooy livré wala yooyu yëpp ñoo koy def samay bi bopp lañu ñi nekk bitim réew itam euh, jotonteeg yow yomb na. waaw ku ci woote jotul da ngay bàyyi wakaal whatsapp. mais pour seeni bagage ak seen. waaw loolu lépp lu ci mën am dañ la koy yónnee DSL wala ñu defal ko kii bi nu mu tuddati CP bi. am na solo bu baax a baax a mm-hmm. baax ñu ngi koy jaajëfal sa relation ak naar yi lan la ba noonu ngay solo sax comme ñoom. waaw dama faa jàngee nag. Mm-hmm. waaw dama jàngee ci naar yi. léegi noonu ñoom ñu bëgg la nangu. jël la foofu di la dugal dugaloo xalwa nga bàyyi ñu fii. <laughs> moom moom moom ku ma yàlla booleel rek. cheikh bi naa la bàyyi nga tàggoo man tooñ laa mën. ay ca naa la bàyyi nga tàggoo mbokk yi joxante rendez-vous sous peu de temps ñu dellu si waat yeggalewaat bagage waaw ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jégluwaat tamit comme li ñu wax rek. Mm-hmm. di jégalu ñi ñuy woo appel mënuñoo jot. Mm-hmm. ñuy bàyyi message. Mm-hmm. bu ndee ba am yenn temps ko tontu. waaw di di di laas waale message képp koo xamante defal na ay ñaan. nga toog diir bañ la waxoon ci gisoo ko mm-hmm. nga wàññi téléphone leer lan ñu ko loolu ñu bëgg ndax ñu lu ñu wax day efficace ñun moom loolu loolu moom loolu yàlla dogal mm-hmm. waaw loolu yàlla dogal jërëjëf sant di la gërëm baax asalaamaaleykum cant ak ngërëm ñun ñoo la koy def ñun ñi nga xamante ni ñun nga nangul ñëw ci plateau bi euh, séddoog ñun sa xam-xam macha allah ni ma ko waxee euh, damay samp nit wala damay ubbi nit te fekk boobu ubbeeku loolu dalu ko waaye tabarkàlla macha allah itam da communication moo toll foo xamante ni faaw danañ jaar ci site yi ndax bu fekkente ni ñiy gàmmoog ñiy ras de munuñu leen a xàmmee dañu dem ba nga fa xam fa nga xamante ni fa ren ba nekk mm-hmm. ñu déjjati ko fa ñëw yaakaar naa ne bu ñu la nee kii nga xamante ni moom la ñu toogal euh, sët ci sëriñ Sidi Mokhtar sët la ci xaadim Rasoul bu ñaanee war naa ñaan bu ñaanul war naa ñaan ci néegu ndey ci néegu baay macha allah donc mi ngi noonu Serigne baara gay del moom la ñu àndaloon euh, ngeen am ko ci 77 804 45 77 wala 78 594 42 42 moom mooy numéro am wala nga waaxu ba fii ci Yoff boori maraton foo laajte marathon rek boo wootee ci numéro yi wala nga laajte kër soxna Mbayang boo gisanteeg moom dana la joxoñ këram ndax nag mën naa ko may loolu ci man ndax nag fam ma jaar a tax ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax jaajëfal équipe technique bi ñu àndaloon rendez-vous sous peu de temps incha allah ci biir seen site Sunugal 24 kër Mbayang asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu fi amanillah jaa ngeen jëf